Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à saint la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité. jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na Leeral FM jagleel na leen seen émission bi di Alfatawa Alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine alarba bu jot jàpp 22 heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen ñuy topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhammad Ahmed Lo xafidahullahu waraa ngeen ñuy topp ci rajo leeral fm bi ci Louga wala ngeen ñuy topp ci salaam ba ca Mbàkke wala keppaar ga ca Kawlax wala leeral ba ca Ziguinchor wala leeral bi ci podoor wala sax ci dégg diine wala xam sa diine wala xam lu diine wala ci dermalo officiel wala ci groupe euh, fatawa soppi do sopp docteur Mouhamed Ahmed Lo wala ci yeneen groupe yéeg réseaux sociaux yi ñu ngi ñaan defal ñu tawfiq defal leen ko moo xam yéen a ngi ci biir Sénégal wala ci biir Afrique moo xam yéen a ngi ci Europe wala Asie wala Amérique wala ci yeneen continent yi nekk ci àdduna bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal ko cheikhana ak docteur Mouhamed Ahmed Lo cheikhana ñu bàyyi la nga def benn ibbee bu ndaw ñu doogay dugg ci li ci laaj inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 alfatawa di ñaan sunu borom tabaraka wa mu defal na tawfiq te defal leen ko yàlla na borom bi tabaraka wa taala nangu ñaan jaamu yàlla yi kon Cheikh Abdallah gannaaw buñ nuyu ki nga àndal ci xarala bismillah jazakum allahu xayran cheikhana wa baraka allahu fikum cheikh bi kii nee na moom day xam na ni ku fase nit te joteeg moom amul yidda bu mu ji bu muy jël waaye nag nee na su fekkee ni borom këram dafa faatu te jotul woon a euh, joteeg moom ndax ku jigéen ki dina jël yidda wala du jël yidda ak ndax dina ko tënji wala du ko tënji. alhamdulilah bu fekkee ne sëy bi xas nañ ko takk ci yoon ñaari way dencante yi. kenn ku ci nekk amee nga sa moroom xaq kii am xaqi joxe can gi waaye kii am na xaqi su fekkee ne génn àdduna am na wala lu mel noonu miraas ak donnante day am waaye su fekkee ku góor ki mu génn àdduna ku jigéen ki dana ko tënj maanaam dana def idda ñeenti weer ak fukki fan door a libre loolu nag wuti naag su fekkee ne moo ko fase su boobaa moom fama lakum alayhinna min iddatin taataddunaha la borom bi tabaraka wa taala wax maanaam su fekkee ne da ngeen takk jigéen ba noppi fase ko te fekk àndagu leen ak moom day yoreelu leen idda naam jazakum allahu xayra wafaqakum allah cheikhana cheikh bi kii nee na dafa am soxna sum bëggoon a takk papam taxaw papam moom ci boppam moom ko góor gi ni ko du am fi ko fa papam teg nag du lenn lu dul askan ak yu demee noonu ñu ko ñii duñ takk ci ñoom wala yi demee noonu waaye nee na loolu yóbbe ne ko ñoom ñaar sax jote nañ jote boo xam ni moom ak soxna si nee na wéet na maam jote daal boo xam ni jaaduwul mu ni loolu ñoom day xam ne am na ci bàkkaar waaye ndax seen waajur wi ko tere ba takk ko ndax dina ci am bàkkaar wala déet baneen bi ci des mu ni bi papam faatoo papam dafa faatu léegi nii ndax moom su demee nag di ñaani ndaw sax ndax bu boobaa loolu dafay dugg ci ñàkk wekk ay waajur walla ñàkk leen a jox seen àq wala déet baneen ba muy laajaat tamit mu ni ndax bu demee ca kilifa euh, xale bu jigéen bi ñoomit ñu bañ koo maye ndax ñoom dañ ci am part de responsabilité bu sëy bi amul wala leneen am ca wala déet loolu daal nee na la bëgg a xam alhamdulilah baamtu nañ ay yoon yoon ci fatawa ne góor gi bëgg a takk jabar day sharia wutalu ko lu ñu tudde wali muy kilifa goo xam ne mooy accepté waaye jigéen lañ ko wutal nga xam ne munta ñàkk bépp sëy boo xam ne jigéen ja amut kilifa goo xam ne mooy takk sëy ba sëy boobe wérut kon ki nga xam ne mooy ku góor ki su fekkee mën naa convaincre ay waajuram ñu d'accord ci sëy ba loola xëyrun lu baax la waaye su fekkee wóor na ko ne li muy séentu ci soxnaan mi ngi ci mi ngi ci moom mu fas ko yéene takk waajuram gàntu te tegu ko ci foo xam ne fu dëgër la su boobaa day mën naa takk soxnaam te sëy ba dana wér moom takk gi ma ko takk nag du tax mukk ñu ne kii dafa xeeb waajuram wala daf ko mooy ay ndigalam waaye dafa jëfandikoo li ko sariya rek am amaa nag ne waajuram dox na digganteem ak sëy bi am tax mu jaar ca gannaaw kër ba ànd ak soxna sa ba dara xew ca loole moom bàkkaar la boo xam ne bakkaaram la moom ndax sharia joxoon na ko fa mu war a jaar nee na ko woon sañ nga koo takk bu ci sa bàyyi d'accordut itam yow góor kon nag su fekkee ñàkk a d'accordu baayam moo tax mu dem di ànd ak soxna sa ci loo xam ne lu daganut la su boobaa bàkkaaram la du bàkkaaru baayam wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi laaj yu demee nii nag bëri na lu mu ñëw lool xam naa daal yéeme na su fekkee ni noonu lay demee ci suñ Sénégal gi nga xam ni quatre vingt pour cent ay jullit la doy na waar trop kii nee na dafa nekk ndaw toll ci bëgg dem armée nee na wax na sax ni Bango la bëgg a dem mais nee bàngoo foofu booy def jamono bi ngay def kii bi quatre mooy yi doo julli te nee na tamit ci lu mu wax nee na am na lu ko ci leer nee na nu muy def ndax day dem bañ julli wala day bañ dem nee na am na ku ni ko sax demal après soo koy fay foo jullee benn julli rek nga julliwaat beneen julli muy laaj daal nu muy def yeesaa am laaju fi ñëw ñoo xam dañ leen di warloo seen sikkim ñoo xam yeesaa ay jigéen sax ñoo xam ne dañuy bëgg a dem ñu ne da ngeen di dindi seen muuraay bi yooyu yëpp daal ci biir senegal gi nga xam ni réewum ay jullit lan euh, xam naa ni ñu ngi ciy déglu maanaam sa ibbee ndax euh, ñi ko bëgg daal bari na te yooyu mooy seen gàllankoor. alhamdulilah euh, lu mel noonu de jaaroon na fa ci gannaaw ba daanaka noppi woon nañ ci li jëm ci ndax bàngo danañ julleeg duñ julleeg am nañ jàkk ak amuñu ko dañ koy tere rek ba jotoon nañ cee wax ak ñoo xam ne foofa ci boppam lañ nekk waaye lañ waxoon rek tan jàpp ne mooy li wér ba léegi mooy léeg-léeg danañ toll situation yoo xam ne day julli gi mën naa tardé waaye nag terewuñ nit ki julli jàkka it amu fa yu mel noonu ay information la yoo xam ne jële woon nañ ko ci ñu nekk su fekkee noonu la demee nag kon li muy firi mooy jullit bi bëgg a julli moom mën naa julli kon na seet nam jàppandee ci moom mu jullee noona su fekkee ne waxtu wu nekk mën na koo julli ci waxtoom alhamdulillah su fekkee ne day boole yaari waxtu julli ko bu nekk wenn julli ci wenn waxtu yit ba tey alhamdulillah ala xaal lañ cay dolli mooy lañ ca daan dolli rek mooy autorité yi jaadu nañu xam jubluwaayi askan yi ak seeni bëgg-bëgg ak seeni culture ak seeni ada ak seeni cosaan ak seen diine ba àtte bu ñu teg ci seen kaw bu mën a doon ñu bàyyi ca xel anam googu ndax loolu dana indi jàmm ci am réew wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na ci biir koor gi da cay amee woon ay bor waaye bis muy fay mu juumuwaat lekk mu ni ndax day continuer après mu fayaat ko wala day dagg foofu rek bàyyi ba suba mu defaat beneen bis bu muy bu muy faye wala nu muy def alhamdulilah juubu ci koor day waroom xam-xam yi am na ci ñoo xam ne dañoo wax ne fay moo ci war te loolu mooy ngirum malik rahimahullah waaye nag la dëppook xadis ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon day mooy ku lekk wala nga naan te tëyoo ko ci weeru koor na continuer rek matal kooram te dara waru ko maanaam fay ci boppam du ko war loola nag mooy di gën a dëgër ndax dalil ji ko tegtale dafa wér lool boole ko ak lool wallahu taala alam jazakum allahu xayra wafaqakum albaari cheikhana laaj bi mi ngi jóge boori Richard Toll kii nee moom gis na ay tegtal yu bari ci wàllu xabdu ci booy julli mais nee na saddlu daf cee bëggoon a xam eh, ma ay tegtal mu ni yan tegtal moo ci ñëw ndax mu xam ko alhamdulilah mu ne gis na ay tegtal yu bari ci xabdu waaye gisul ab tegtal ci saddlu tegtal lam ci jublu xam naa mooy dalil maanaam ab xadis wala ayab alquran buy firndeel saddlu wane ne mënees naa julli langal say loxo loolu de wax dëgg yàlla man dajewu maag moom gisuma ko fenn te jàpp ma ne it nag am na wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi soxna si nee na dañ koo fase waaye moom dafa ëmb mu bëgg a xam nag jigéen junu fase mu ëmb di jël yidda nee nan la ko sharia lan la ko sharia sant ci nekk waayam euh, pendant yiddaam Euh, ba yiddaam di jeex alhamdulilah jigéen ji ëmb tey iddaw li ko charia sant mooy lim sant mboolem jigéen ñi nga xam ne dañuy iddaw rek ragal yàlla ci sàmm sa bopp ci muuru sàng saw yaram sori lépp loo xam xeetu taar la su fekkee ne du euh, pase mi daa nekk pasam fayli su nekkee pasam fayli moom sañ naa taaru ci biir kër gi Euh, ki ko fase di ko gis ndaxte léegi mën koo delloosi laalla allah yuhdisu baada dalika amran maanaam yàlla mën naa dugal ci xolam loo xam ne mooy tax mu soppi ko delloosi ko su fekkee nag dafa nekk pasem ñetteel nag su boobaa moom amul benn euh, sens ci mën a dellusiwaat ci jëkkër jooji loolu moo tax foofu mënta jëfandikoo benn xeetu taar xam na ni daal daam mooy continuer rek ba keroog jeex su jeexee mu libre door a sañu si feneen su fekkee gis na ku ko bëgg loola nag mooy saa bu amee doom rek moom iddaam jeex na moo xam jege na moo xam sori na wallahu taala alam jazakum allahu xayra waffaqakum allah bi soxna si nee na tabaski su fekkee ni moom amul xar ndax moom mën naa rey béy wala déet ndax kilifa gu góor nañ ko ko sante ndax moom noonu lañ ko ko sante wala déet. alhamdulilah laaj bi kon dafa mel ni ñaari laaj la. béy de ci bahimatul anaam la bokk borom bi tabaraka wa taala bi muy santaane ñi koy jaamu ci xeeti rend yi bahimatul anaam la jëfandikoo nag buñ ko waxee mooy xar ak bëy ak nag ak gëléem loolu mooy bahimatul anam kon yooyu li ca nit tabaskee am na am tabaski ca na ko sharia détaillé bu dee lu ca gën nag dañoo toftaloo am na lu ca gën am lu ca tegu am lu ca tegu moom na ci waroom xam-xam yi ñu ne xara ci gën waaye am na ñoo xam ne dañ ne lu ci ëpp yàpp rek moo ci gën su loolu jàllee li ci sës sës ca ba bëggee àgg ca li ci gën a suufe ci yi nga xam ne ñooy bahimatul anam lu dul bahimatul anam nag bokku ci maanaam gadaar bokku ci waaye béy moom des koy tabaskee bu baax a baax a baax sax lu mën a nekk la beneen laaj bi ci des muy ndax moom jigéen ni digale góor mu tabaski noonu lañ ko ko dég dégale lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne tabaski góor a koy def ndax góor su tabaski yóbbaale njabootam dana yóbbaale soxnaam wala ay soxnaam dana yóbbaale ay doomam itam ak ñi nga xam ne ñépp ñu mu yoree lañ ci seenu dund ñooña mën na leen a tabaski mën na ko yéenewaale kon loola moom lu lu mën a nekk la waaye nag jigéen ji ci boppam rey am tabaskiyam day dañuy wax ne mboolem téere yi nga xam ne ñooy wax di nettali istuwaaru saxaabiyaat yi moo xam soxna yonent ba moo xam soxna yi la wala soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ca société boobee xam-xam tuxalut wala histoire tuxalut ne jigéen sàngam day ba muy tabaski xar sàngam la rey wala ay xar yu bari la rey wala mennum xar la rey lu jëm ci tabaskim jigéen daal tuxaluñ ko ginnaaw tuxaluñ ko nag ñu wax ne kon dafa amut kon góor mooy tabaski waaye jigéen du tabaski ndax nag du tabaski jooju day xaraam ci moom wala dañ koo sopput wala daa mën a ñàkk damay wax ne daa mën a ñàkk su fekkee àggul ci yàq de daa mën a ñàkk ndax ginnaaw bu borom këram tabaski yóbbaale ko moom doomam yëpp maa sooyaroo gut ñu amul nekkagul ay mu kàllaf kon su ko tabaskee de ba noppi mu wëlbati ko di tabaskiwaat te xam ne yàpp wooyu buñ ko rey ci genn kër amaana amuñu nuñ koy def euh, su boobaa xeetu yàq li daal di dugg si su ko defee nag bu boobaa bañ jaa tabaski moom mooy daal di jaadu wallahu taala alam macha allah barakallahu fiikum cheikh bi kii nee na yeesaa bu sangoo farata ba pare ndax uh, mani yu bu génnoon ci moom nee na bu sangoo pare yeesaa dafay sentir beneen beneen liquide wala beneen ndox buy génn ci moom mu ni ndax loolu da koy sangul farata tamit wala déet donte xam na ni loolu moom du mani yu xëy na laneen la alhamdulillah li jaaru day ci kuy sangu farata ak koo xam ne sobe dafa génn ci suuf cër mooy béréb boob yi nga raxas ko ba mu wóor ne set na wecc te dara desul ci biir waaye nag su fekkee ne dafa sangu ba àggal mu wóor ko ne am na liquide bu génne ci moom liquide boob yi benn mu nekk ndesit yoo xam ne dafa desoon ci biir wala mu doon lu yees luy génn loola nag lu mat a xàmmee la te it lu yomb xàmmee la li nga xam ne da caa nekkoon tey génn buy génn moom day génn rekk génnin woo xam ne àndut ak bànneex àndul ak jeñu àndul ak dara liquide buy sotti ku rek la su fekkee nag la tax ndox moom yi génn dafa am xeetu bànneex wu ko gaar mu génn te ba muy génn mu ànd ak bànneex su boobaa de ca ngaay da koy war waaye su fekkee lu ca desoon génn la nag loola jàpp rek ma ci war waaye cangaay du ca war wallahu taala alam jërëjëf cheikhana wafaqakum allah cheikh bi kii nee na dafa am ko xam ne bi mu faatoo dafa bàyyi ay doom waaye njëkk muy faatu am na ñaari soxna yu mu fase woon yoo xam ne seeni doom danoo nekkoon seeni kër nijaay léegi nag bi mu faatoo ñi ñëw di miraas ñu ni daal euh, doom yi dinañ dond ci alal ji waaye kër gi muy suuf si moom comme ñee danoo nekkoon seen kër nijaay kon ñoom dana doon ci suuf si ñu dëkkoon ci kër gi nag yeneen doom yi nga xam ñoo dëkkoon ci kër gi ñoo ñoom dinañ ci dond mu ndax noonu la ko sharia waxe wala déet alhamdulilah ki nga xam ne dafa génn àdduna day doomam yëpp a koy donn moo xam ñi loose woon ci biir kër gi la wala ñi loose woon feneen wax jooju mu wax wax ju yéeme la ju tumuranke la muy ginnaaw dañoo dëkkoon seen kër nijaay kon duñ bokk ci ñi doon kër gi loola moom sharia waxu ko te sax kuy jëfandikoo xel sax day mel ni ki dëkkul woon ci kër gi moo gën a yeyoo doon na ci kër gi ndax su fekkee ñee ñoom bañ xam xàmmee seen ndeyjoor ak càmmoñ ba léegi ñu ngi dëkkoon ci kër googu yi te xam ne kii am na ca xaq ba noppi moom mu dëkk ci kër yi bokkam yoo xam ne bokkul ak baayam kon am na xaqam joo xam ne raw na ko diir boobu yi diir bu yàgg boobu yi bu fekkoon ne dañuy jëfandikoo xel rek te jëfandikoo wuñ sariya dañ naan moom lim dëkk ci àll bi lépp kon dañ ko ko war a fay ndax fii la waroon a dëkk suñ ko koy fay nañ ko ko xaymaal ci kër gi génne wàllam ci miraas mi doolil ko ci loola loolu lépp nag suñ ko defatut ndax sariya waxut loolu waaye xel a ko wax suñ ko defatut waruñu koo xañ nag miraasam mi nga xam ne moom sariya ko ko jox alali baayam yépp buñ koy miraas wàlla ma nga ca muy kër gaag la des ñoo ca bokk yam wallahu taala alam jërëjëf cheikhana wafaqakum allah cheikh bi kii nee na li ñu wax ci juma ne bu imam bi tàmbalee xutba kenn warta wax ki nga xam ni moom mi ngi dox jëm ci biir jumaa ji mi ngi dégg imam bi ak xutbaam nee na ndax moom atte boobu lay am walla déet donte àggagul ci biir jumaa ja dugg waaye mi ngi dégg xutba imam bi yëpp di dox di ñëw ndax dafa war noppi bañ a waxti wala yorugul àtte boobu alhamdulilah yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na su fekkee ne yilimaan a ngi xutba bi boo déggoon koy wax sax bul ne ko noppil maanaam kon noppi mooy li jaadu kenn warta wax lu tax kenn warta wax mooy xutba bi dañ ko war a déglu dañ cee war a kon su fekkee ne am na ku jóge ci këram tardé bañ tàmbali di xutba muy dox di ñëw ci jàkka ji te fekk mi ngi dégg li imaam ji wax déggiin woo xam ne wu leer la su boobaa la war kenn ci biir jàkka ji rek moo ko war ndax ginnaaw mi ngi koy dégg da ko war a déglu ginnaaw mi ngi koy dégg da ko war a déglu ànd ak moom wàccee di dégg muy wax di dox di ñëw ba keroog muy dugg ci jàkk ji def ñaari rakkaam toog déglu xutba bi loolu moo jaadu waaye jaaduwul imaam di xutba ngay xam li ngay wax ba noppi continuer di waxtaan wallahu taala alam waffaqakum albaari jërëjëf cheikhana cheikh bi kii mi ngi woote bitim réew nee na dafa gis yàlla ni waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ba pare mu gis ci Sénégal yeesa bu ñuy def euh, bu ñuy ceytal ñu jël ndaw si yóbbu ko ca salon ba ak yu demee noonu daal ak yëf yëfaan ya cay topp mu ne ndax loolu ci tabarruj lay dugg wala déet alhamdulillah wala tabarrajna tabarruj aljaahiliyati al mooy feeñal ab taar won ko ab jaambur jigéen feeñal ab taaram ngir won ko góor goo xam ne jaambur la dafa xaraam amul exception ci siit wala lu tub siit ñoo ci bokk yam yëpp jigéen ju mu mën a doon war naa nëbb ab taaram ci bépp jàmbur bu góor bu mu mën a doon loola farata bu yàlla waxee ne toog leen ci seeni kër yéen jigéen su ngeen demee ba mënatu leen a bañ a génn su ngeen di génn na ngeen nëbb seenu taar te bañ a feeñal seeni taar ci jàmbur yi su boobaa dañuy gëm ne loola waajib la maanaam warteef la jigéen ji nëbb ab taaram képp ko mën a doon ku dul ku ko jege jëkkëram wala baayam wala mel noonu loolu yi mu wax ne moom lañuy def nag muy ëpp seet ñu yóbbu ko ci salon toilette ko ba mu mel noo xam ne léeg-léeg kenn du xam nu mu mel sax euh, génne ko su fekkee ne day day génn rek dellu ci biir jigéen ña muuru ba àgg ci biir jigéen ñi door a muriku ñooña di ko gis tam jaambur nekku fa su boobaa mëne su ta wax ne jëf ji ci boppam dañ koo tere su fekkee ne dañ doon def lu xaram nekku te ni nga tax ñuy wax waaye su fekkee ne rek taaru laa ak toilette toog yu mel noonu ba noppi bi mu génnee ña ko war a gis rek ñoo ko gis muy ay góor ak jigéen góor yoo xam ne yu ko jegele yu mën a gisub taaram lu mel ne boroom këram mel ne doomam lu mel ne kum bokkal ndey bàyyi tey ñooña mën nañ koo gistal fitna du ca am lor du ca am su boobaa loola dara du nekk waaye nag su fekkee taar boobu da koy génne nag di ko wane ca mbooloo ma su boobaa ala kulli xaal mi ngi ci lu xaraam jazakum allahu xayran koo xam ni dafay nekk di yëngatu ci ay xew-xewi bidaa nee na bu ñëwee ci moom di ko àbb ay basang ak i bool ak yi noonu ndax dina dagan mu jox ko ko wala déet alhamdulilah ki nga xam ne daa nekk ci ay biddaa walbati ko di la àbb ay bagage bagage yi muy àbb benn mu doon yoo xam ne jotewul dara ak biddaa bi muy taxawal su boobaa day dugg ci ki nga xam ne day dund biddaa ndax des na jëflanteeg moom ci jaayanteeg jëndanteeg ab léegi nuróog yooyu on oh, kay des na ko def ndax waxuma la ku ci biddaa waaye ku ci nekkul ci diine lislaam sax des na jëflanteeg moom ci njaayanteeg jëndanteeg ab lente su fekkee ne kon ko ki nekk ci biddaa dafay ab bagage yi waaye bagage yi jotewul dara ak bidaa bi muy taxawal su boobaa abal ga dara nekku ci waaye kat su ko wóoree lii muy ab nii taxawal biddaa bi la ciy def su boobaa du dagan ndax day di dugg ci dimbalante ci lu baaxut te mu def ne wala taawanu alal ismi wal udwaan bu leen di dimbalante mukk ci loo xam ne bàkkaar la wala mu nekk ak tooñaange te it tooñ ku gën a rëy nag sos ci diine yàlla ji loo xam ne lu ci bokkut la loolu ku ko def tooñ nga sa bopp waaye jalgati jalgati nga xaqi sa tabaraka wa wallahu taala alam barakallahu fiikum jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na dafa am magasin ajjuma na moom xam na ni waxtu ajuma du dagan nit ki di jaay waaye nee na soxnaam bi nga xam ne moom juma waru ko wërta dem juma nee na ndax mën na ko bàyyi ci magasin ba mu continuer moom di jaay moo mu dem juma wala déet alhamdulillah borom bi tabaraka wa def daf ne ya ayuha alladina amanu ida nuudiya lilsolati min yawmi aljumaati fasaw ila dicri illahi wa daru ñi gëm yàlla su fekkee ne nodd nañ ajjuma na ngeen bàyyi la ngeen doon def te dem julli la nga cay déggee mooy bàyyi gi la nga doon def te njaay ak jënd ca biir bàyyi googi nga koy bàyyi dafa am lu mu taqalool moo tax nga bàyyi ko mooy dem géejee dem di julli ji mu daal di mel ne su fekkee ne kon doo dem julli ji ndax danga am gànt kon ndigalul bàyyi njaay mi day jëm ci keneen waaye jëm siwut ci yow loolu moo tax leen ci waroom xam-xam yi ñu jigéen ja ak musaafir ma muy koy tukki wala ka nekkul ci diine lislaam su fekkee daa nekkoon ci liggéeyam ñu nodd su dee jullit ba day moom mën naa arrêté daal di julli tisbaar continué waat ci liggéeyam doon di jullee guñ ajuma ndaxte ajuma ja waru ko loole yi mooy atte fiq bi waaye nag mu amaat meneen mbir mu mat a bàyyi xel moo xam ne léeg-léeg siyaasa charia moo koy indi muy taxawaalu taxaw taxawaayu attekat bi ci boppam na muy xoole eh, li jaadu ndax léeg-léeg mën nañoo santaane ne waxtu wii bu jotee na ñépp tëj su ko defee kan moo digle loolu njiitul réew mi su ko waxee su boobaa ñëpp dañoo war a tëj seeni bitik ndax ndigal la ndigal la loo xam ne dafa dëppoo ak jox eh, benn xew-xew ci xew-xewi lislaam yi nga xam ne yuñ yuñ fonk la jox ko màndargam respect ndax su wóoree ni julli ajjuma su jotee am na waxtu boo xam ne bitig yëpp dañuy doo tëj bitigi jullit ak yurulee jullit ya su boobaa ndigalul buur sañ naa àgg ca loola te su ko defee nit ñi day jaar ñu topp ko ca loola su fekkee lu mel noonu amoon nag nga xam ne la fa sut rek mooy individu yi kenn ku nekk da ngay seet la la gën a doy nga di ca jàpp su boobaa loola mooy tax e, bàyyi ga ba maanaam ñàkk julli ga bàyyi njaay ma su boobaa day daal di doon loo xam ne nekkalul farata wallahu taala allah jazakum allahu xayra baraka allahu fiikum tontu yi leer na naññ naññ naññ naññ cheikhana yal na yàlla barkeel xam-xam bi kon mbokk auditeurs yi fii la ñuy yemani ba ci beneen ay bis ci seen émission alfatawa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque totale et de renommée internationale lan nga bëgg group électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité. jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral FM jagleel na leen seen émission bi di al fatawa al fatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi. kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine.